teew ñëpp rek di jiital ci nuyo bi ak bi serigne bi tako koy mu yag fi lol te wer di yëkëti ay cadeau yo xam cadeau ndigalam la muy cadeau sante ak ngeureum ci bis bi nga xamne ne amul lul mom muy bisub Cheikh Serif Assane neena mi ngi sante bu baaxa a baax ñi nga xamne ne doon taxaw alquran bi waaw seen Moundiaye mi ak ñi mu ak ñom Touba job ak de seigne Boubacar job sëriñ bi nee na mi ngi leen sant bu baax Touba ndax taxawaay yi rafet na lool te lii it passé koy def fukki kaamil ak juróom moom du ay caaxaan kon ku ko jàngal loolu Pastef la suñ baa ngi leen ci sant bu baax te njëkkul njëkkul ren it waaw ñaar fukk waaw ñaar fukk ak juróom ñaar fukk ak juróom waaw duy caaxaan te it njëkkul njëkkul njëkkul tey sëriñ bi nee na at mu nekk rek dangeen koy ànd ak ak ñoom ak moom waaw ñu sant bu baax nee mi ngi sant it maam Alioune mi Diop moo baa Ibrahima di la ñaanal it sëñ bi nga yàgg fi loolu te wér wax taxawaay bàyyi amoon nga mottali ko ak mbooleem koo xamante ni si rek ñëw nga ci bis bi waaw nee nag moom bis bi li ko ci gën a ñor lii la mooy turu yàlla wi ak alxuraan bi ak xasida yeeg tawre diñ fiy jàng ndax ne amul lu dul baayam Sëriñ Asan kon nee na mi ngi leen ciy sant bu baax yéen ñi nga xam ne yéen yéen a ko doon taxawul alxuraan ji waaw mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal waaw xanaa nag di leen dolli rek ne bis bi moom lu ci waay def sa bopp nga ko defal ndax kiñ koy defal muy Cheikh Sérif Assane moom dafa waxoon ni moom ñemewul bor dafa amuk pay waaw ku ko lebal benn ku nekk dina la fay fukk loolu moo ko wax dellu it kiy bàyyi muy Cheikh Ibra dani doom ji maam dimbali naa la waaye Assane moom daa ñëw ak yëfi boppam ndékkil boppam kon moom te ñun xam nañ ci dara <laughs> waaw waaw Cheikh Assane daa sori waaye mum mii rek faal lum lum lum ñu ñaanal dal ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te Fall ba fi nga bëgg a yóbbu sa liggéey maam bi suñu boom dimbale di di ko ñaanal sa kilifa yi ci kanam sa kanam ñu yàgg fi loolu te wér waaw jëm ndeeg sëñ Moussa mbooleem sa kilifa yu ne sa kanam rek ñu yàgg fi loolu te wér Fall Ndiaga waaw jaajëf sant nan baax a baax Fall Ndiaga min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mahabala iyo mahalam radio biri daatan xaadule axraadi yasir lana jame xana yan fa xana wa ko fana jame xama yadruna yasir lahum bihi li sitansara fa kullu ma yasatuhu tayasra rajawna ila narfa li jannati kawsar sharifun karimun hunda tuba wa kawsar ya rabbana habli bi haqqil kawsar yumna al hayati wa juru kasri barik mam cheikh ibrahim fall barik cheikh sharif hasan fall barik cheikh mamadou fadullah mom cheikh sharif hasan fall assalamu alaikum bok talibi bok juliti len di xare di len jéggulu di len bal haq di len balax tay ñaan yalla sun borom bo len jéggal di ñaan ci bis bi nga xamni amuñu lu mom moom muy bisub fatlikou bisub ñaan muy mam Cheikh Serigne Assane Fall lañ ci defal ñaan borom daru Kawsara ah, sunu yaakaari te ak ëlëk yi nga xamni Cheikh moom Cheikh Mamadou Fadlu Fall mo koy defal waa bu baax ak mboolem mouride mo mu yépp di leen siyaare di leen jéggulu te di leen ñaanal yalla di ñaanit kilifam gi nekk ci kanamam ñako jitu moy Cheikh Mamadou Muntaxa ak sëñ Amdi Fall Modou Mbend ak sëñ Amdi Xadi Fall mi nga xamni moy jëruñu Kawsara ñoo ngi di siyaare yeen di leen ñaanal yalla di siyaar mboolem fu jullit nek ci aduna mboolem ummatu islam bayuni kenn waxtasimu bil mobil jami'an wala tafarraqu nañu ànd ci buumu yalla gi te baña tagaliko lool moy li gën ci señ bi te gënal ko tam gën ko bëgg ci jamm ñu bu ko defé nak bokk talibi liggey baangi ni ah, ñen ñi ci góor yalla yi ne ci wañu ak soxna yi ño nek ni yor walu xéewal yi ñi nga xam tamit ño nga ci biir walu alcorane ji ño nga ci biir kër ga ak serigne bi ñi nga xamanteni ñom la sama borom dogal yi ñu nek ci turu yalla yi ndax Baye Fall moom gànjaram mooy turu yalla ak togg ñam diko joxe ndax lool mom dara bu ko dole ci jàmm bu ko defé nak mbokk talib yi nga xamni ñom la lañ liggey bi lu melni señu Idrissa fay euh ah, Demba Jon yëgsegul waaye way moko fi nekkal jëwriñ Cheikh Pen mu ngi fi ak Masata Ñang salim ak mustafa Diop ñom ñepp ngi fi mboolem jëwriñ yi fi nek it nañu nek ben ngir yalla ak tuwa ak Cheikh Assane ta xamne ne amuñu lu dul Kawsara amuñu lu dul kër gi ak defaru nak akuk dafara rek lañ bëgg sëriñ bi am di xadifal neena man na mën ne it koo mënta dem bàyyi ko dem ne ku dem looloo tax ñu and ak sëriñ bi ngir ak defaru akuk defare sëriñ Asan nak manal nañu ko yàlla nañu ko defal la nga xamne ne tële nañu ko ci suñu bop muy ay xéewal sans borom man nako jox jàmm yàlla nañu ko jox buñu yëg ni nañ ci la nga xamne bëgg nañ ko ci sëriñ bi moy ak yok akuk wér yal na ko sans borom defal te defal ko mbooleem kilifam yépp waa waajuram bu baax wii nekk ci biir it yàlla nañ ko fi yàgg gis muy mam Diagne ak soxna ami ak mboolem soxna Adama ak mboolem ñi mu bokkal waaye di ñaanal Cheikh Moussa mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikh rek ci dëkk bi muy Serigne Moussa Fall yal na ko sàmbaram doole yàggal te wéral ko ak mboolem ku mu jaboote taalibi yi it sëriñ bi rek la am seenu bëgg mooy jëf sëñ bi ñoo ngi sàkku yàlla na nu dimbali ci manug jëf bañu ñu jekku ndigal ami xéewal defar lañu yënënte ci suñu bop sëriñ bi maynu katan ban man ko jëflante ci barke mam Cheikh ibrahim Fall kon ma jox jëwriñ Idrissa mu li kaddu sëñ Madiang Fall a ni nii Demba ñëwagut waaye ñoo fi nekkal ndax ñom ñëpp ben lan ndax ab talib bi ben fu mu nekk mëna nekkal ñëpp té ñun ginaaw dañu and ngir sëriñ bi fo suñu yëne tagaliko ñoo ngi ñaan suñu and yalla nako sëriñ bi saxal lim bëgg ci ñun nak yalla nako am waye ñun nit li bëgg ci mom yalla nañu dimbali ban man ko am barke mam Cheikh ibrahim Fall Babul Mouridina bismillah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. kon ñu ngi julli ci yarante bi ñu ngi sant yàlla julli ci yarante bi tay gërëm Serigne Touba ak Cheikh Ibra di ñaanal suñu Serigne muy serigne Modou Fadilou Fall yalla na fi yag lool tamit euh, di wax rek di sanni kaddu yi ñew comme niko ko jëwriñ euh, comme ni ko jëwriñ Fallou Kéemaan waxee non rek la amé ndax li matana wax lepp sax man la sanni wax nako wa waaye dañu manam bir bo ci bokké rek du ñak kaddu yo ci mëna a nga wax ko ca li ci ëppoon solo lepp mën na ni wax nako dañuy dolli santaat yàlla di waxaat yëkkatiwaat suñu kàddu di ñaanal sëñ Muntaxa euh, mu yàgg fi loolu te wér te ñaanal suñu di mudum benn faal mu yàgg fi loolu te wér te ñaanal suñu bun suñu asan mu si am di faal mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal ki nga xam ne nag mooy suñu yaakaar tey ak ëllëg mu suñu mudu fadilu faal moom sërib asan di ko ñaanal mooy mu yàgg fi loolu te wér ndax bis bii day bis boo xam ne day bisam di léppam te léppam na ci muy ñaan goo xam ne da koy fàttaliku waajuram wa di ko defal chaque année Euh, saa buñ ca tolloo ñu mel ni tey jii nag ak si nañ ci bis bi toll ci tey bi ñu xëyee ñu ngi woon ci wàccam kaamil yi ci leen jógee ñu jógee ci wàcc kaamil yi ñu ngi continué waat samfaal bi muy sikkaru laay euh, bi ci tegu tamit mi ngi ci waañ wi ànd ak jëwriñ yi nga xam ni ñoo jiite waañ wi benn ci fàllu kéemaan ak ñi ko àndal euh, ñu ne ci wàllum yi nga xam moo jëm ci wàllu xéewalu añ bi ñu ànd koog mbokk taalibe yeeg mbokk jullit yëpp ak soxna yeeg góor ñi jigéen ñëpp di wax ne bis bi nag day bis boo xam ni day bis ubbeeku ci sëñ fa Fadilou Fall ndax day bis boo xam ni day wax day faral di wax ni bis bi da yëmaliwu koog benn bis ci àddina ndax lépp lu mu doon rek jëm moom di waajuram wa muy Serigne Assane moo ko def te bis bi day fàlliku saa su ko ci fàllikoo bu jógee ci lay dëgmal li jëm ci wàccaayu koor gi te ñaare ba ci bari yëpp ci loolu lay kon bis lu mu fonk la lu mu jàpp la di ñaan suñu borom nag comme ni ko Fallou waxee ñi nga xam ne ñooy mbokki taalibe yi muy góor muy jigéen muy mag ak ndaw takk giin takk suñu wenn say mooy li gënal sëriñ bi dañuy ñaan yàlla na gën a sax yàlla na gën a yàgg ñu bokk ndey bokk baye ndax tay ji manam kër gi tay ji bisab tay bi man na ni gox yu bari daje na fi ku melni Mbour ku melni Soal Thiès Dakar euh, gatagne Touba mana na ni régions yi fo ci dem rek sëñ bi talib bu mu fa am rek am na ñoo xam ni jóge nañ fa ñew téwal ko ci bis bi muy bis bu mu fonk kon nak bis bi ñi ngi ñaan suñu borom bi taxaw gi mu koy taxawal di ko ñaanal wajiruma di ci di ci ay ñaan mu di ay xewal ta sa suñu ñukoy yek ñu ngi ñaan suñu borom mi nga xam ne moo koy taxawee muy Sëñ Fallu yàlla na ko yàgg a taxawee ànd koog taalibe yi ak jullit yëpp ci barke Sëñ Touba Sèvres kon ñu yemale foofu kàddu yi rek jox ci Madieng Fall mu sànn ci ay quelques kàddu moom tamit ndax ci jëwriñ la bokk. asalaamaaleykum maa ngi leen di ziare di nuyuwaat ñëpp rek kenn ku ci ne maa ngi lay nuyu sa tur di jottali kàddu rek daanaka ni jëwriñ ñi waxee rek daanaka bu nu waxee sax. danaka mën na ma a sànni kàddu waaye nag di santat bu baax rek di commencer rek fin yam yem fofu rek di santat bu baax comme niñ ko waxee. di santat bu baax Serigne muntaha mu yàgg ya fi lol tan ak wér di ñaanal señam di fal mum señ Modou mbend mu yàgg ya fi lol tan ak di ñaanal Serigne di Xadi mi nga xamni moy buntu bu waa kër sëñ Assane mu yàgg ya fi lol tan ak di ñaan señ fallu fal, mi nga xamni moy sun suñ moy sun Serigne mu yàgg fi lol tan ak comme ni ko jëwrin yi rek bis bi mi ngi ni di bisub sant di bisub ñaan di bisub jariñu ndax kin koy defal de telewul won dara leppam da matan kon nak bis bi kep ku fi ñew na sa xel dal bu baax ndax bisub mbekté la bisub ñaan la bisub bisub jariñu la kon nak ñi ngi koy sante di and ak sun serigne serigne Modou Fall Fall mu yag fi lol tan nak di ci ñaanal jëwrin yëpp di ñaan dal ñi ngi ni ci wañu jigi kurel kuréel ngi ngi ni Euh, ñeneen ñaa ngi fee ñun ñoo ngi ci fii ci waañ wi di di yëkkati suñu kàddu fii ci waañ wi kon nag ñi santaat ñëpp di jaajëfal ñëpp di wax lu ci waay def rek bu déwénee yal na nga man lu këpp te yal nañ ko yàggatee te lépp luñ fi jëlee si njëriñ yal na wisaaroo ci réew mi te ñaan réew mi jàmm am fi yàlla dolli fi jàmm ci barke maam Seera Fall barke Cheikh Serif Assane mi jàmm am ci réew mi taalibe yi am wér am xéwal ndax Baye faal moom danoo war a am wér danoo war a am xéwal ndax yat wudul wàcc la koo xamul noo koy def daal boo jiitu booy dem nee ko ay ca kon nag ñi ngi sant yoon wi li sëñ bi wax rek am na nodd waaye amul nege kon nag ñi ngi sant bu baax di santaat mbokki taalibe yi fu waay ne rek nga gën a bàyyi xel ak koor gi nga xam ne moom lañ dëgmal tamit luñ ci jëf ren luñ ci jëf daaw ñu jëf lu ko te ànd ko ak wér ak fekkeek tal ñi ngi jaajëfal ñëpp ñëpp di jaajëfal ñëpp. waaw ah, di siyaare bu baax euh, di sant bu baax nag euh, njabot yi nga xamne ñoy soxna serigne bi bu ñu tuddee soxna Daba tuddu nañ bolem ñu top ci ginaam ñep waye suñu yaay ku Ñanga nga ne moom serigne Moussa Fall ak njabot gaak wa kër gi yep ñongi fi lool nak limi firndel rek moy Kawsara mom benn bop rek la te wax deug yalla ñom seenu taxaway ci kër gi ak seenu taxaway ci serigne bi dembu la won booba démé gut ni kon ñongi sant bu baaxa baaxa baaxa baax di ñaanit ndax jëwriñ mam Jaara Kebe nekku fi waaye soxna Absa Njaay mo fi nek bu ko defee moom la jox kaddu gi ci turu mboolem soxna yi bokk ci kuréel gi yëpp ñu jot li kaddu yi bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokk taalibe yi mbokki jullit yi di nuyoo ci kàddu sëñ bi ak kàddu soxna maam jaar Bousso borom Porokhane sunu jëwriñ ak soxna Maymuna Seck sëñ Cheikh Pen ñu ngi ziyaar ñëpp bu ñu dañuy jiwum di ziyaar bu baax a baax a baax a baax soxna yi sëñ bi sant na gërëm na di ñaanal Cheikh Modou Fall Fall mu yag fi loolu tawer ak ñepp seigne Moussa Fall bepp magam yag fi lool tawer ci daraaje seigne Touba ak Maam Cheikh Fall di ñaanal seigne bi dole ñoo ñaan rek ñu yag fi loolu tawer yag ko taxaw di yàgg a jëf ci bis bi ci carton yalla ak mbaaxam seigne bi sant na soxna yëpp gërëm na ñepp yeen ñi ci wañ bi ñepp seigne bi gërëm na leen sant na leen neena ci daraaje mamam yeen yag fe tew di ko ko cantal ci kattanu yàlla ak mbaxam daraje Serigne Touba ak Mame Cheikh Ibrahima wér a wér a wér kontaan nan bu baax a baax a baax a baax a baax

sëriñ Cheikh di Fall sëriñ Moussa Fall sëriñ Sidi Fall ak mbooleem ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñooñu kilifaam mu ngi leen di ñaanal ñu yàgg fi lool mu yàggaat ak ñoom liggéey bii nga xam ne mooy liggéey sëriñ Tuubaa ak maam Cheikh la sëriñ baa ngi cadd xam ni am na tàmbali waaye am yomukaay ni mu ko waxee woon tey ci suba loolu la yeesalaat seen jëmm yi góor yàlla leen teg suba du tudd yàlla ba noppi kàddu yooyu rek la ndax bis bii day bis bu màgg di bis bu tedd di bis bu jàmbaar yoo xam ne saamaro moo ko wàcce woon ci daaru dunya mu liggéey fi liggéey bu rëy liggéey bu matale boo xam ne maanaam aw yiw la yéene woon ñëpp muy Cheikh Serigne Assane maam Cheikh Ibra loolu nag yaakaar naa ne kenn nattaléwu ko ndax gox bii lu ne di kaw sara ak feneen fu kaw sara ci kaw suuf saa ba ko tuddee xel yëpp dem ci Cheikh Serigne Assane Fall kon borom cër la boo xam ne saa borom moo ko cëral wàcce ko jamono ñoom ñii mu mel ni leen bàyyi leen fi ñuy ñuy ñuy moom ñuy ñu ñoom it ñuy moom ndax sëñ Moussa dafa wax ni bàyyi mooy saxaar doomay wata kuy xam ne yàlla dafi të ku jaandaal boobu te mata ñëwal ci doom yi bopp moom seen Modou Fadilou mii yàlla dogal amul lu Cheikh Sëriñ Assane Fall Cheikh Sëriñ ko fii ci Thiès ma juróom Cheikh kon lépp lu waaye def sëriñ bi na ko jànkatal xuraan laa ko balee ci ñoom bi suba ñu ñëw wàcc fa xuraan bu yaatu ñiy jàng xasaay bi suba ba tey ñooy ñu nekk fi kuréel doon yëkkati xas day léegi ci biir sëriñ bi rek ma leen sant bu baax a baax a baax maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ maam moom Cheikh Sëriñ Assa Fall ne ca Papa ngeen nekkal fi ko fii ci Thiès yéen seen taxawaay macha allah rafet na ndax tur yàlla bu dégg xam ne tur yàlla wér la ñëw kuréel bu xaw boo gis góor yàlla yu koy def nga xam ne ñii ñu seetlu lan loo xam ne li ñuy def ndax sa moo wax ne moo gën a màgg lépp ak bëri yàlla nag kenn xamul mu toll ndax yàlla moom ni mu toll rek noonu la noonu la a ak bëri ko ne fu mu ne la gën a tedd ko wax nee na delluwaat ko sëñ Tuubaa ne sécurité laahi lil xulóo bi xóotoo bi si tafaa fa am na xaatamatoo kon bu jëlee loolu jox ko muy seen liggéey te doon na ko ci maam Serigne Fall ba dina loolu xel dal a a baax. na na nga xel nag jëloon rek Baye Fall jëf rek moom la baaxoo waaye mu wax ju bari kon nañ ñeme jëf ji te xëccu rek bu ci jëmee rek borom jëf ji moo lay jàppale boppam ba lu ci bëgg a def rek. danañ ko def kon sant na ñëpp jërëjëf amin